asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk internet yi Senfootball TV nuyu naa leen bu baax si leen di am mbégte saa su ne defal leen vidéo mbokk internet yi tey tey damay ñëw wax si match euh, Sénégal ak kii di Égypte ñu bëri ñu ma si laaj ay information après plainte boobu xamante ne waa euh, fédération égyptienne de football def nañu ko xam si tribunal arbitral du sport TAS donc képp ko xamante ne dana am lu la métti si wàllu sport football ak yeneen sport yëpp euh, bu fekkee yow sa dëkk dañ la jox tor man nga dem fofu nga nga def ben plainte maintenant nak dañ ci dégg ay déclaration yu dul jeex parfois dama naan mais nii naare bu ñu quoi xam nañu respecter Afrique noire dama maa ngi gis tamit Cameroun Algérie bi nañ ko zéwaat jaar na fi dugg na fi mais buñu yeb yëpp quoi après même si démentir nañ ko cette fois ci ben président de club buñu wax Farak Amer mom mo ñëw wax quoi xamul ay waxam yi moom xamu fa la ko jëlee xam mom néna na à quatre vingt dix match bi dañ koy ziwaat té non seulement dinañ sanctionner arbitre bi sanctionner fédération sénégalaise de football match bi Qatar lañ koy mais ki ko mu yëpp kii mais moo tax gars yi bind bi carrément ñeneen ni kii du ko crédible ay waxam yàgg na wax ay toj-toj loolu la ñu wax quoi mais yow match bu xamante ne yow dañ koy dem ba série am sens comme Sénégal ni muy amee sens nga tiire ñàkk léegi bu ñu ko ñëwoon nag lan la ñu wax xam est-ce que dinañ wax te ñoom ils sont tellement mal placés pour wax égyptiens yi ils tellement mal placés boo jëlee histoire nu ñu def 2006 penalty bu leen kenn xam scandale bu ñu ko doon scandale jamono wax ak yéen si wax da nga da koy wax mu ne ma li ma mais ay xaaj ñu def ko entraînement yi dégg nañu histoire yi ñu fi dégg du ñu doon entraînement ñu andi yooyu avant sax Égypte njëkk bi suñuy maam ak suñuy tonton yi xamante ne ñu ngi foon lan la ñuy expliqué mais égyptiens yi ils sont tellement mal placés pour wax si match bi yow kenn defu la dara nga ñëw football Euh, sa dëkk nga gagné fa 1-0 xam nga suñu hymne national nga sifflé ko ñu ne dégg nga jël suñu joueur di ko teg laser yow da nga doon da nga doon bippe da ngay wax ne ñu doon am crédit lépp loo def nga ñëw ñoo ñoo la ko gën a ay ñoo la si dax ñoo la ko gën suñu joueur bi saa yu maanaam luñ ko wax saaga nañ ko lépp lu xam ne ñun def nañ def nañ ko si match boobu ñoom def nañu quoi bu ñu fonto ba pare avant quoi boo jëlee histoire bi ils sont dañoo mal placé quoi xam ah, nga maa ngi dégg moment si si grande bourse ñuy wax algérien mais mais kooku man man ay reer dama jàpp quoi franchement kii ay waxam yi moom la ñu war a sanctionné sax moom mii na match bi dañ koy rejoué man de match bu ñu demoon ba rejoué na rejoué ne dañuy rejoué Sénégal kii ma bàyyi Afrique quoi ma bàyyi Coupe d'Afrique bàyyi ba xam nga donc lii am addina ñëpp kenn waxul ne match bi dañ ko rejoué ñoom ñoo dañ koy rejoué moom kese en yi passe daa am ko waxoon ma bàyyi mu sedd non jarul jarul kii quoi mais parfois gars yi dañuy soxla ay information pour xamal leen quoi aussi ñun parce que da fi nekk aussi tamit même mën nga lire benn article mën nga lire ko jàll mais am na ñoo xamante ne bëgg nañu xam lan la ñuy wax si boobu ba léegi si si plainte beeg yooyu en tout cas man moom à 1000 pour cent match bi duñu ko rejoué même sanction yi sax on va voir ndax day def huis clos wala dañuy amende xaalis wala je sais pas franchement euh, tribunal arbitral du sport bi bu fekkee c'est ils sont sérieux ils sont sérieux dans ce dossier mais c'est un dossier vite dara amu ci lu dëgër peut être man man li ma si mën a wax peut être mooy euh, bis boobu ñu xaw a toj noonu noonu peut être loolu laa mën a wax mais lii si nekk autour du benn règlement moo bind si ne euh, dañoo tere amul benn règlement lu benn règlement ba ñu wax ne dañoo tere sifflet amul benn règlement bu ñu wax si hymne nationale dañ koy bàyyi mu jàll amul règlement bu leer loolu peut être oto bi toj nañ ko peut loolu mën naa ko jàpp mais yeneen yëpp lépp lu ñu def ñun mais égyptiens yi dans le passé ak bii suñu mas yu mujj def nañ ñu ko donc kii di wax ni mais franchement waxam yi ay wax daanu sareet la ba pare man li mu jaar muy quatre-vingt-dix-neuf pour cent match yi dañ koy rejoué ma ba pare mu ne dañuy sanctionné fédération Sénégal sanction euh, moom moo ko wax am da si am lu ko leer nañ nañ nañ moom nee lu ko leer la ci am lu ko leer nañ nañ nañ nañ mais bu doon lii Ligue des Champions ñu joué match euh, yi Coupe d'Europe ñu joué ñaati match moo am yu xamante ne voilà cool lay bari ay gars yi buñ ko rejoué dañuy jàll ne seen yow ñu tirage ba Sénégal xam ñu muy joué ba préparé coupe du monde yow nga toog foofu kii kii nañ ko bàyyi foofu mbokk yi li mu nekkoon vidéo bi quoi ci commentaire ku si nekk na mu wax xaaru ak gis-gisam ma leen di jaajëfal yéen ba beneen